l'accident bu doy war mo am ci diwanu Linguère ci àllarba bi ci suba muy ab accident bo xamanteni bi def na lu tollu ci juróomi doomi adama yu fa ñak seen bakkan bilan bi nak muy ay itam blessé yo xamanteni ne némé ko nañu ko ci lolé mu ngi xewee fukki kilomètre diggante Barkedji ak département bu Linguère ñi loru ci bobulé l'accident muy blessé yi ak ñi nga xamanteni bi rek ñoo ñak seen bakkan yóbbu nañu leen ñum ñëpp ci l'hôpital bi nekké ci bobulé diwan ci ñi faatu nak bokku na ci ngone geey ak ay Aysatu Njaay di ñaari jàngalekat yoo xamante ne bii bañu leen recruter yàggul dara